Ndeye Khady Ndiaye mooy borom Sweet Beauté mbokki internet ñu ngi leen nuyu di leen baax a baax saa su nekk seen mbégte di suñu bànneex ba tax na na ngeen ko defee ak yéen ginnaaw bu mu toogee ab diir moom mi nga xamante moom moo di Ndeye Khady Ndiaye kenn gisu ko la ko waral nag mooy problème bi nga xamante ni bi moo fi amoon ci diggante Adji Sarr ak nga xamante ni bi moom moo di Ousmane Sonko mbokki internet yi moom mi nga xamante ni bi moom moo di euh, borom Sweet Beauté ñu euh, euh, dugaloon ko ci li nga xamante ni bi moom moo di bi ndax moom moo moomoon li nga xamante ni bi moom moo di suite beauté euh, ka waral loolu nag moom moo di Adji Raby Sarr mi nga xamante ne bi moom moo indi woon problème boobee mbokki internet yi boobu ba tey nag gis nañ ne kii nga xamante ne moom moo di Ndeye Khady Ndiaye apparaîtrul ci réseaux sociaux yi gannaaw ba mu amee euh, doom ñu ngénte ko lool mbokki internet yi ki nga xamante ne moom mooy mbokk yi ki nga xamante ni moom moo di su borom Sweet Beauté moom nag gis nañ ko mu daal di génn def ab live di eh, wéyal li nga xamante ni moom moo di marchandise eh, yamu doon jaay waaye nag ca biir live boobu gis nañ ñi nga xamante ni bi ñoom ñoo di eh, sénégalais yi dañ koo naw lool bëgg ko lool ba tax sax nee na moom daal la muy jaay sax dem na sax ba compte am bi nga xamante ni bi moom lay jaayee dafa dem sax ba dafa daal di plafonné mu mel ni moom mi nga xamante ni bii moom moo di borom Sweet Beauté ñi nga xamante ni ñoom ñoo di sénégalais yi jàppale nañ ko loolu ginnaaw ba mu toogee ab diir deful dara ginnaaw ba mu toogee ab diir nekk ci ay jafe-jafe mbokk yi ci biir loolu moom mi nga xamante ni moom moo di borom Sweet Beauté Ndeye Khady Ndiaye moom mi ngi ñuy expliqué moom mi nga xamante ni bii ba mu nekkee ci ay tolof tolof ba ñu ko war koo daan ñaari atub kaso ki nga xamante ni moom moo di ba jaxate def def benn live daal di wax ne ki nga xamante ni bii moom moo di Ndeye Khady Ndiaye dafa war tëdd ñaari atum kaso yi ndax nañ ko tëj ràpp ci kaso bi ci loolu nag ci la julle def ñaari rakkam daal di ñaanal nag ki nga xamante ni moom moo di ba jaxate moom itam ñu daal di koy tëj ràpp ci euh, kaso gi moom nag mu ngi ñuy xamal ne euh, moom bu ñaanee ñaan gi dafay daal di dal ndax ñaan googu noonu moom moo dal tey euh, ci biir loolu mi ñuy xamal ne ki nga xamante ni bi moom moo di Adji Sarr problème boobee yëpp lii yëpp moom moo ko indi woon te boobee ba tey dégguñu ko dara amuñu benn renseignement mu mel ni mbokki internet yi ki nga xamante ni bi moom moo di borom Sweet Beauté génnaat na reprendre li nga xamante ni bi moom moo di ay activité ginnaaw ba mu nekkee woon ci ay wolof yu metti loolu mbokk yi mu ngi noonu ki nga xamante ne moom moo di Ndeye Khady Ndiaye borom suite ba tey reprendre na li nga xamante ne bi moom moo di ay activité waaye nag def na live bi nga xamante ne bi euh, touché na képp koo xamante ne bi euh, sénégalais nga euh, képp koo xamante ne bi internet nga waaye képp koo xamante ne bi aussi ab patriote nga en tout cas lu mu si jëm li dinañ ci xam bu baax a baax waaye daal ma ngay jaay li nga xamante ne moom moo di ay marchandise am reprendre li nga xamante ne bi moom moo di liggéeyam waaye tamit nag borom këram jàppale ko ci loolu li gën a fës ci xibaaru people mooy ki nga xamante ne moom moo di Momo Wade Momo Wade nag bu ñu ko waxee xel dem na ci turam dëgg muy Mouhamed Wade waaye nag ki nga xam ne moom doomu animateur la mën na ne sax xaalisu animation la koy ngéntee ndax ki nga xamante moom moo di DJ euh, Prince bu RTS moom mooy di euh, euh, papam mbokki internet bu ñu ñëwee ci ki nga xamante ni bii tey moom moo di moom moo Wade moom Maguette Wade mi nga xamante ni bi moo daan def télévariété moom moo di maamam kon moom mi nga xamante ni moom moo di moom moo Wade dafa juddu ci li nga xamante ni bi moom moo di animation moom nag ñi ko xamee woon ci fële ci Sen bi mu doon fa defee émission bu am solo lool xale yi bëggoon ko loolu waaye tamit nag askan wi bëggoon ko téléspectateurs yi bëggoon ko ndaam sax boo émission bi masaana jot sax da ngay gis ñëpp dañuy scotché wu di ko xaar moom mi nga xamante ni moom moo di euh, ci biir loolu mbokki internet yi ki nga xamante ni bi moom moo di moom moo wàdd di euh, doomu animateur mooy prince ba nga xamante ni ma ngi fële ci RTS moom nag gis nañ mu daal di rejoindre fi nga xamante ni bii moom moo di RTS li ñu ko won mooy photo bi nga xamante ni bii ànd na ci ak ki nga xamante ni moom moo di Pape Alé Niang nouveau directeur bu mu mel ni ki nga xamante ni bii moom moo di moom moo wàdd la mu mën a apporter ñi nga xamante ni moom moo di waa RTS bëri na lool ndax ku ne xam na ne moom moo ba mu nekkee fi nga xamante ni moom moo di seen TV da daan assurer li nga xamante ni bii moom moo di émission ba mu mat sëkk bokk internet yi en attendant programme bi di génn ñoo xam la la ñuy jox moo dinañ leen ci xel bu baax a baax ci pop bu programme bi génnee ñu xam moom moo fan lay féetee ak ban émission lay jël war ko mën a doxal comme bàyyam ba na mu nekkee ci RTS di ko doxal a baax a baax mbokk internet yi saa su nekk seen mbégte di suñu bànneex ni ngeen ko bëggee la ñu koy defee ak yéen fi rek lay xewee sur Setsima TV di leen ne bi moo di Nit Doff li nga xamante ne bi tey moom mooy def ba bi la ko waral ki nga xamante ni moom moo di Nit Doff dañu koy invité woon fële sept mu daal di fay eh, fekkante ak nga xamante ni bii moom moo di am Ameth dooy ñee ngi naan xeex na ñee ngi naan xeexuñu waaye daal lu ci mënti am daal histoire ba nii la demee ki nga xamante ne bii moom moo di nit so dof ka ko invité woon moom moo di journaliste ba muy laal la ba ñu dalee waxtaan ci li nga xamante ni bi moom moo di euh, affaire patriote maanaam li nga xamante ni bi moom la nit dof doon xeex ba ñu téewoon ko fële ca kaso ba euh, ci biir loolu ki nga xamante ni bi moom moo di euh, nit dof di développé di wax ci li nga xamante ni bi xeex bi nga xamante ni xeexal na ko fii ci Sénégal waaye tamit na xeexal na ko ki nga xamante ni bi moom moo di Ousmane Sonko mbokk internaute yi ci la ko ki nga xamante ni bi moom moo di laal la daa ji laajee ne ko ki nga xamante ni moom moo di Ahmed ki nga xamante moom moo di Ameth Ndoye yëkkati na ay kàddu jamale ko ci nguur gi fi njëkkoon nekk waaye tamit nag jëmale ko ci nguur gu bees gi ndax nee na ki nga ñi xam te ñoom ñoo di nguur gu bees gi seen liggéey dafa xaw a yéex par rapport ak nguur bi fi njëkkoon a nekk ci la ko ki nga xamante moom moo di nit dof daal di tontoo ne ko kooku moom dafay wax wal li nga xamante moom moo ko neex waaye tamit nag wër ci li nga xamante moom moo di réseaux sociaux yi di wax moom li nga xamante moom moo di nit dof daal di waxee baat bi nga xamante ni bi baatu ku mer la ci biir loolu ci biir émission ba ba émission ba jeexee ki nga xamante ni bi moom moo di nit dof daal di dajeek nga xam te moom moo di Ameth Ndoye waaye ci biir loolu nag am nañ renseignement ñu ne xeex nañ xeex bu métti lool ñi ne nañ kàddu yu jub nañ ñi ne nañ loxo yu jub nañ waaye nag gis nañ ne Ameth Ndoye moom dara dalu ko ndax ba ñu ko invité fële nga xamante ne moom moo di ci seen teraanga laaj ko question bi dégg naa xee jot ngeen a xeex ña nga naan sax yaa nga hôpital mun na leen man maa ngi nii actuellement dara jotuma waaye nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di avocat yi dañuy def seen liggéey moo tax duma wax ci li nga xamante ne bi moom moo di problème bi mu mel ni mbokki internet yi problème nga xamante ni bii moom moo di euh, xamante ni bii moom moo di indi dof noonu la demee mbokki yi du ci mën di am ndax na ni ngeen ko bëggee lañ koy defee ak yéen saa su nekk yegg ak jàmm fii ci Setsima TV tey nag liñ leen indil mooy euh, Jakarta maan bi nga xamante ni bii dañu ko rey fële ca Thiès buñ ne Thiès xel dem na ca Njaasaan moom nag ca nañu expliqué nañu ko reyee mooy dañu ko yóbbu ba ci àll bi daal koy faat waaye nag yemuñu ci faat ko rek waaye daal di koy taal bokk internet yi nañu gisee ki nga xamante ni bii mooy Jakarta man ba ñu taal ñaaw na loolu mbokk yi mu mel ni fi mu toll nii temb phénomène nu rey dafay gën a bari fii ci senegal ñu war cee jël li nga xamante ni moom moo di ay mesures ci biir loolu naka lañu xamee ne Jakarta la ndax gis nañu. benn casque nekk ca wet ga waaye tamit nag gis nañ miir bi taq deret waaye nag gis nañ ne foofu yi taq deret lool waaye nag li ñu gën a remarqué mooy que ne moom mi nga xamante ni bii moom moo di jakarta bi euh, gis nañ ci wet ga benn plastique waaye nag dafa mel ni beneen plastique bi moom moo ko soloon mu mel ni dañu ko yóbbu ba ci àll bi daf ko def jëf ju ñaaw jooju noonu mbokk internet yi boobee ba tey xamuñu ay mbokkam ndax na mu mel kenn mënu koo ràññee kenn mënu laa wax ne tax kii góor la wala jigéen waaye euh, liggéey bu rafet bi ci ñi ci war a def liggéey bi def ko moo tax ñu remarqué ne ne góor la waaye tamit nag moo tax ñu remarqué ne ne Jakarta maan la mbokk yi mu mel ni phénomène Jakarta maan yi saa su nekk dafay gën di développé ndax fan yee rek rek découvrir nañ ne am na benn Jakarta maan boo xamante ne bii moom itam dañ koo rayoon la même chose mbokk internet yi ndax waruñoo xoolaat li nga xamante ne bii moom moo di sécurité dëkk bi ndax waruñoo xoolaat li nga xamante ni moom moo di phénomène bi ndax rey yi bëri nañ loolu xale yi ku jóg rey mbokk yi mu mel ni phénomène la boo xamante ni bii daan na am de waaye jamono yiñ toll nii phénomène bi dafa gën a bari mbokki internet yi ñu leen di jaajëfal di leen jox dig daje waaye tamit nag di leen laaj ndax tolluñu ci jamono ji nga xamante ni bii ku faat war nañ laa mën a faat.